waaye itam jigéen ña fa nekk di yeewoo si gox bi seen coono si dina wàññi moo tax ñu ne ma machine wol ma tegal leen ci décortiqueur di xolli gerte ma tegal leen ko ma tegal leen ci bi def tige dage am na beneen machine moom moom mooy wal dugub dugub dugub. voilà ak décortiqueuse ak soq ak soq donc muy ñeenti machine ñeenti machine yi tey bu ko xaymaa ci xaalis toll na presque ci 1 million 750 mille francs CFA. ñaari millions yu manqué. donc loolu nekk na investissement boo xam ni investissement bu rëy la te nag li ma bëgg mooy ñu liggéey loo leen ba ñu mën a fay. li nga xam ne moom mooy njëgu machine te loolu yomb na ndax ku ñëw wolu fay fukki dërëm wala juróom bu la nga defee fii ak ay fan léegi seen xaalis ñëwaat du ma leen bàyyi nag ak machine yi waxoon naa ngeen xool waxoon naa ko moom na xool nan la ñuy indee 380 ndax 380 moo koy doxal bu ngeen amee local bu ñu war a damba daate ba mu baax mu mun faa nekk itam su ngeen waxee ñaata la mun naa si taxaw donc lii mooy loo xam ni def naa ko pour Diourbel bukk yëpp def ko pour euh, comment dire Diourbel euh, Diourbel Diourbel Thiog ak Diourbel bukk def naa ko fépp chand waaw xëy na nag foofu la tàmbalee si ñoom mais su ma yéene mooy bépp groupement de femmes bu nekk ak ñun te soxla lu mel nii nga def formation ba pare ñu ubbil la ko bu ko defee jigéen ñi di si liggéey di si am li nga xam ne moom lañ ci am kon boobu machine yaa ngi nii laa ko tàmbalee maa leen ko digoon promettre leen ko ñu ngi nii bu subaa ngeen oto ñu si ko techniciens yi ñëw installé ko ñu formé leen ngeen commencé liggéey di walal seen bopp waaye tam di am na war a am si xaalis donc délégué de quartier voilà maa ngi rafetlu sa teewaay docteur nag ñoo koy gërëm ndax docteur li mun ñu defal ñun amatuñu fayam ñun dañ ko bàyyi ak yàlla ak sëñ Ismaïla Diouf mi ñu yaakaar muy suñu sëriñ te sëñ Isma koo ko mu faj aajo kon nag teg nañ ko ci loxoy sëñ Ismaïla mu faj aajo lépp loo xam ne moom lañ ko yéene yal na ko ci sëñ Fallou jiital mu am lu mu bëgg ndax nag kontaan nañu ñun dañoo kontaan lool nag ndax docteur dañoo defal lu jafe nag ndax amul lenn looy taxaw wax ko docteur mu am te lu muy lu muy wax lépp loo ko wax day taxaw fajal la kon nag ñun ñoo koy sant di ko gërëm. bàyyi koog yàlla ak sëñ Ismaïla mi ñuy yaakaar ñun ñëpp daal. merci Ndéla Fall. lii c'est pas la première fois. lii c'est pas la première fois ñoom bu ñëwee ne ma wax nañu ak docteur pour nañu machine ma ne la si yéen am ngeen machine. te yéen am ngeen machine. ndax li ma xam ci moom mooy wax loo ko da jafe na bu ko see wax na la ndax dama cee jaar ak moom. ma ne ko la gënoon a jafe doonoon suñu feebar ñu doon ko jàmbat képp ku ma sa taxaw bañ ko ko waxee boobu du dara du dara la ñu bu soobee yàlla dinaa ko def te boobu bañ defee euh, jëriñ bi trois la woon nga ne da nga ko def ma dem ko ñoom ñu invité mu dem ci cinq cent mille man mu rusat na koo jox fii nag kii sama buñ ko buñ ko waree kocc kocc ak moom affaire ba tey boo gisee indiwuma ko la ñu waxoon ak nam demee dafa wuute nga ne ma gis ma yëkkati déwi bi jox la nga ne yow day ci euh, ko séréer la jàpp waaye lii kay xam nga ne defoo ko ñoom ñoo def waaye ma altine dem France waaye nag Cheikh sama rak moo tax bi nga leen dijee lii man ne moom bu digee day def ne dañoo tàmbalee ci lii déedéet lii dafa ñëw dolleeku ci li nga defoon waaw kon tàmbale woo ci lii ah ñi nag li ma lay faral di wax rek docteur ñaan si wu leen jabar ñaan si wu leen kër ñaan si wu leen tool docteur leen la leen ñaan ñaanu leen xaalis it ñaanu leen place xëy na yéen a koy ñaan loolu li mu leen di ñaan mooy bésu vote jot ngeen sànnil ko carte fi mu bëgg ak ni mu ko bëggee man daal li ma leen di sant mooy nekk leen ay militant de première heure am waaw fu xelam dul daal moom du yéen moom du ngeen ci bokk. te loolu moom ni nga wax daam Diop ne boo tëddee saxel xel dal feetam boo tëddee na sa xel dal coow li lu mu bëri bëri ñu xam nañ ni mu demee. yàlla lii moom de suñu xol dafa sedd sax bu mënuñoo wax du lii la njëkkee ci ñun ndax fee dafa mitti woon lool ñuy rooti di takk ay sareetu mbaam di doy ay bidon sonn ba bëgg a dee amuñu ndox mais docteur ba mu ñëwee la sunu jàngoro faju dañoo xëcc robinet ba ci sunu biir kenn ku nekk di def lu la neex. ñu tegoon ni ci foofu lay yem ñu am jàngoroy machine waxaat ko ko mu faj ko kon docteur dañ koy bàyyeeg yàlla ak yeneen ci bi yàlla mi nga xam ne moo am fay ak yeneen ci yàlla na ko yàlla fay ci barke salaatul faatiha wallaahi lazim li may wax nag sama xol bii laa ko tibbee te yàlla laa ko bàyyel ndax docteur mi dafa nekk mag ci man ndax moom may mun a ñoo bokk benn baay te may mun a ak alpha ñoo bokk ndey te man ak alpha ñoo bokk benn baay kon docteur sama mag la lu ma ko defal lu ne sama mag laa ko defal te yàlla laa koy bàyyel li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko